télé bi bégal sama askan Ladoum ngi ci concours euh, final bi nga xamante ni si mooy agneau yi mooy ñi nga xamante ni si foqaguñu bu ngeen xoolee xar yaa ngi rafet tubaar fa kàlla agneau yi ñu ngi ko tuddee ki nga xamante ni si mooy Fallou Ndoye Fallou bi nga xamante ni si macha allah liggéey na liggéey bu extraordinaire ci élevage tey jii boo xoolee final ba nekk nii boo xoolee borom rob bu ñuul bi xam ni lii ay fo ay caaxaan nga xool culul bële sa xel day sa xol day day sedd macha allah nga xam ni xari xari taaru nañu xam nga man ñan laa yërëm membre de jury ñi nga xamante ni si ñoo war a génnee premier deuxième troisième tey jii dans le fair play nga xam ne tey ku gagné yaa gagné. ku jël P ak ki jël troisième ak ki jël sixième ñoo bokk même ate parce que kan mooy gagné élevage mooy gagné boo xoolee kii ci rob bi macha allah nga xool bopp ba mi ngi mel ni koy juli maanaam jullikat yi ni seen jëy di leeree macha allah xoolal ma kii du ay fo du ay caaxaan bay jën yaa nga ñuul kurung ah macha allah iwile bi tubaar fakala fii la xewee ci terrain raay bi fii nga xamante ni si mooy fi nga xamante ni si mooy Mbàkke ñan ñoo woote waa en seen premier édition xam ne lii ay fo lii du ay caaxaan xam ne ñii daal ku yokkul dañoo wàññi laf cat ndax ñi ngi liggéey liggéey bu extraordinaire première édition nga gis ay sujets yu mel nii première édition nga gis ay sujets de qualité ci ay agneau macha allah nga xam ne kon ah gars yi ñu ngi liggéey waa en xam ne waa Touba ñu ngi liggéey liggéey bu extraordinaire xoolal ma huile bi xoolal ma lii ci huile yi robb macha allah xoolal ma corne yi corne yaa ngay melax corne yaa ngay briller corne yaa ngay nes nesi macha allah nga xam ni kii du ay foo du ay caaxaan ay waa jile li may wax rek mooy ñan laa yërëm ñan laa pitié mooy ñi nga xamante ni si mooy ñëlee membre de bi ña ngay concerté ña nga nala di concerté wu xoolal bi nu mu rafetee macha allah ñëpp a ngi ne jàkk jàkkaarloo xar macha allah fan la ñu war a dugg fii ci case de la vérité nga xam ne case de la vérité bi fii fi la lépp di xewee case de la vérité bi fi la lépp di xewee macha allah nga gis ni membre de jury baa ngi nale ñu ngi sëgg di concerté nga xam ne ñii daal am nañu problème am nañu problème nga xoolal ma waa réseaux sociaux xoolal ma leen macha allah xoolal ma leen ñooy leeral lépp ñooy génne lépp live and direct di gën cek nga xam ne ñii duñu ay foo ñii du ay caaxaan macha allah live and direct nga koy am ñuy gën cek fi muy tàngee fi muy xoyom xoyomee fi muy neexe fi muy nooyee xoolal ma ñii macha allah ñu ngi liggéey liggéey bu extra ci élevage xoolal ma ñii. xoolal ma public bi xoolal ma public bi nga xam ne ñii daal macha allah grand xaasu ma ngi noonu ànd ak délégation ñuy liggéey bu yéeme macha allah daara na ngi nii macha allah macha allah ale loo daara jolof càmm rek ko ñor tubaar fakalla macha allah ngeen ko gisee première édition bi nga xamante ni si waa ñoo woote macha allah final agneau final agnel tey jii ñu war a dugg ci case de la vérité nañu xaar ba ci kanam dinañu xam kan mooy jël premier kan mooy jël deuxième kan mooy jël troisième ci ñaari catégorie yi femelle ak ak mâle ci ay agneau ak agnel. macha allah xar mi fukki weer la am tubaar fakal la xar mi rafet na dugg na ci case bi gen gaa nga ca suuf. xar ma rafet na ma nga am nopp bu ñuul xar ma rafet na ma nga am benn bët bi wetu bët bi mi ngi ñuul dugal nañ ko ci case de la vérité macha allah xar baa ngi def rabu bu ñuul teg bu rafet la xar bi def tubaar fakal la mi ngi am fukki weer. waaw mi ngi noonu macha allah boxe 12 borom tengaade bee ko indi borom caaya ji allah mi ngi def rabu bu ñuul bopp baa ngi ñuul. am tache yu weex jàpp ca gémmiñ ga weex macha allah tànk yaa nga weex gen nga gen ngaa nga weex macha allah ñu ko takkal benn benn collier bu xonq bar fakalla macha allah. waaw kooku mu ngi jógee box C14 mi ngi am 11 mois mi ngi def culul macha allah dugal nañ ko ci kaas ba. xar mi rafet na macha allah geen gaa nga ca suuf mi ngi def culul macha allah kooku mi ngi jóge ci box C21 mi ngi am 10 mois mi ngi am fukki weer tubaar fakalla xar baa ngi def rob bu ñuul macha allah ba jën yaa nga ñuul kurung ñu ngi ko takkal benn collier bu xonq dugal nañ ko ci kaas ba xar ba si gina xar baa ngi ne sàtt sàttaaral xar ma si gina macha allah lii rafet na xar ma rafet na il est très macha allah xar mi rafet na ñu ngi koy défilé mi ngi ñëw mi ngi dugg ci kaas bi mi ngi dugg ci kaas bi mi koy dugal ci kaas bi mooy kan kooku mooy xaadim soleil moo koy dugal ci kaas bi xar ma dugg na ci kaas ba xar baa rafet xar baa ngay cokki macha allah ah bergerie mi ngi jugee box c waaw fii ci terrain bi nga xamante ni si mooy terrain raay bi fii ci Mbacke Bawol mu nekk première édition bi nga xamante ni si mooy waa foiru en tête fii ci Touba waaw moo jël euh, troisième place mi ngi noonu waaw xar baa ngi rafet macha allah tubaar fakalla baay caaya moo ko indi mi ngi jël troisième place boo xoolee Baye Caaya mi ngi sol benn tengaade macha allah Caaya yëngu na tubaar fakalla macha allah la deuxième place mi ngi juge ci box ñaata mi ngi xaar ba léegi suspend fii ci terrain raay bi nga xamante ni si mooy Mbàkke Bawol bi nga xamante ni si a ah, mi ngi juge ci box bi nga xamante ni si mooy C7 xar maa ngi toll ci 10 mois. macha allah xar mi rafet na téléspectateur u Ladoum TV xar mi yanj na xar mi rafet na macha allah moom mi ngi jël deuxième place nga xam ne kii du ay fo du ay caaxaan mi ngi xewee fii ci nga xamante ni si mooy berger mooy terrain raay ba fii ci Mbacke Bawol ki nga xamante ni si nag mooy catégorie agneau bi ki nga xamante ni si mooy jël premier fii nañ ko xaar nga xam ne kooku tey turam à jamais élevage dinañ ko graver à jamais turam dootul mës a fay ci élevage parce que tey moom la ñuy xaar. waaw mi ngi mi ngi yor robe bu rafet. nee nañu xar bi am na béy jën. waaw nee nañu xar bi. xar bi am nay nopp. waaw nee nañu xar bi. nee nañu xar bi am na geen. waaw nee nañu xar bi. xar bi am na luñ ko takkal. nee nañu xar bi nee na xar bi mi ngi am ñeenti tànk waaw xar bi bi am na karaw xar bi ñaari couleur la am xar bi mi ngi am box numéro C14 kooku di benn cuulul ki nga xamante ni si ca cuulul ba la ca cuulul ba ca cuulul ba la nga xam ne kii du ay foo xoolal balla mi ngi tëb ko yom mi ngi tëb balla mi ngi tëb balla mi ngi tëb balla mi ngi tëb Balla mi ngi tëb Balla mi ngi tëb Balla mi ngi tëb waaw Balla ngi noonu Balla ngi noonu waaw Balla ngi noonu macha allah macha allah Balla nee na xol bi sedd na Balla nee na xol bi sedd na oh oh oh lii moo rafet waaye macha allah lii moo rafet oh Balla ngi tuur ay xéewal Balla ngi tuur ay xéewal Balla ngi tuur ay xéewal Balla ngi tuur ay xewal oh yaram daw na yaram daw na oh Balla ngi tuur ay Balla ngi tuur ay xewal oh, li rafet na macha allah xol bi sedd na xol bi sedd na xol bi sedd na macha allah macha allah élevage ah loxo bi ci kaw Balla macha allah macha Balla kontaan na Balla kontaan na oh Balla ngi tuur ay Balla ngi tuur ay oh xol bi sedd na. oh oh xol bi sedd na xol bi sedd na macha allah macha allah ah balaa ngi naan dox balaa ngi naan dox oh xol bi sedd na ndeysaan Balla moo jël première place oh macha allah macha allah macha allah lii rafet na macha allah macha allah élevage rek kay gagné tubaar fakal la xam ne antenne du ay fo antenne ay caaxaan macha allah ca culul ba xol bi sedd na xol bi sedd na macha allah élevage oh c'est ça l'élevage balaa ngi jël trophée balaa ngi jël trophée balaa ngi jël trophée macha allah balaa ngi jël trophée oh téléspectateur Ladoum TV lii macha allah macha allah takkal nañ ko chaîne takkal nañ ko chaîne chaîne takkal nañ ko chaîne oh. téléspectateur Ladoum TV yéen a gisandoo lii téléspectateur Ladoum TV xam ngeen ne Balla moo juddu la lii jël ko joxe ko macha allah tey Balla am ndam élevage rek am ndam xam ne lii du ay fo lii du ay caaxaan. fii nga xamante ni si mooy Mbàkke Bawol fi nga xamante ni sii mooy terrain bi nga xamante ni si mooy terrain raay ba nga xamante ni si ñooy organiser oh macha allah Pape Dieng ñoo na kottu na ko Pape Dieng kottu na ko Pape Dieng kottu na ko oh Pape Dieng mi ngi joxe trophée bi mi ngi joxe trophée troisième place macha allah macha allah lii rafet na oh il est beau rafet na. lii rafet na élevage rek kay gagné élevage rek kay gagné macha allah téléspectateur Ladoum TV xam ngeen ne lii du ay fo lii du ay caaxaan macha allah troisième place bi macha allah lii rafet na. macha allah deuxième place baa ngi noonu kooku di Cheikh Diakhaté moo jël deuxième place. ki nga xamante ni si bergerie Mbakol macha allah oh lii c'est beau oh rafet na macha allah macha allah Cheikh Diakhaté mooy joxe mooy joxe trophée bi macha allah macha allah lii rafet na téléspectateur Ladoum TV xam nga ne la fête est belle téléspectateur Ladoum TV xar bi nga xamante ni si moo jël première place. catégorie agneau macha allah Pape Ndiaye joxe trophée macha allah moo koy joxe tubaar fakal la Pape Ndiaye moo koy joxe macha allah Pape moo koy joxe oh là là oh là là li rafet na oh là là oh bala xalal na ko yoon bala xalal na ko yoon ah teg nañ loxo ci trophée bi teg nañu trophée bi ci loxoom teg nañu trophée bi ci loxoom macha allah oh. Balla mi ngi def déclaration Balla mi ngi def euh, damay tàmbalee fi ma war a tàmbale mooy di nuyu waa Touba di leen sargal di leen jaajëfal di leen wax ne ñun lu ñu am Touba la nu ñu toll Touba la di sant éleveurs Sénégal yi yëpp di lancer un message di wax ne le président Fadilou Keita lii ko dal du naqar du tiis ça fait partie de sa formation politique ñu ngi koy ñaanal mu jóge ci yëkkatiku ba faaw macha allah di lancé un appel di wax que ne en tête comme ni ko sànq Abdou Aziz waxee yokkute alerte la donc yàlla fi jàmm sax boo gisee jël naa concours jëlati concours mais sama élève ba ma juddoo ba tey mosuma am lu ma neexee nii ndaxte xar bi di dun xaaf di sama frère Abdou Aziz moom moo ko moom yaayam doomu Chicago la papaam di major mais loolu yëpp ñoruma ci li ma ñor mooy Abdou Aziz nanguwul xam nanguwul dégg nanguwul gis lu may wax mooy loo ma jox baax na foo ma jaar loo jaar mag la kilifa la te am na ay ñu ko encadré ñu bëri mais mu bàyyi ñëpp ñëw ci man donc ndamam man daf may jooyloo ndamam moo ma gënal sama ndam di ko wax ka ne nag li ci kanam mooy daa yàlla na jàmm yàgg ba Cheikhul Khadim maa ngi remercié ñëpp macha allah. bi mooy télé bi bégal sama askan Ladoum TV Ladoum TV